bokk yi gannaaw bu nu sante yàlla julli ci yonentam ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp di baalu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fas yéene fàttalante tey bala ñu cee dugg am na ci ayu bis bi lenn ci doomi réew mi ñu seen bakkan rot noo ngi leen di jaal seeni bokk ndax jaal ci warteefu jullit la bokk digganteem ak ay dëkkandoom yàlla na leen yàlla mooy xolub muñ tomb bi ñuy fàttalante tey xew-xewub jamono la xew-xewub jamono bi nag ku ku mu neex ak ku mu neexut daanaka mënu caa ñàkk xam dara muy wàllu politique bi politique bi nag atte wuñ ko moom ci boppam ba xam baax na walla baaxut kii ko war a def walla kaa ko war a def waaye lenn ci lim àndal walla loolu fekk si ko moo ñu tax a jóg tey li mu àndal walla mu fekk si ko benn muy ay wax ay waxante yoo xam ne day jib ci ay diggante te ñépp di ay jullit walla sax àgg ci ay jëflante waaye tey dañuy yam rekk ci waxante yi nga xam ne daf ciy fés lool gannaaw sama xam-xam màcc ci politique xawma daa ànd ak politique walla daa war ci politique gannaaw awma ci xam-xam dama koy bàyyeeg ña ko xam waaye liñ ci seetlu daal mooy waxante gi moom lu ci ràññiku la rawatina nag ku yàlla nattu muy faral di gëstu di ubbi xamukaay yu yees yooyu nga xam ne ku ci xas ba dugg day mel ne jàngoro ji ko topp bis bu set balaa am jàmm da ko ubbi xool la ca yeesaat suñu borom subhanahu wa taala nag moo waxoon ci alquran al karim ne li kullin jaalna minkum shiraatan wa minhaja nit ñi yàlla moo leen wuutale kullun yaamalu ala shakilati kenn ku ci nekkit ak fam fare loolu mooy lan mooy bi nu fi suñu borom indee subhanahu wa taala ba ñuy gën di bari làmmiñ ji tàmbalee wuute loolu daa dab nit ki rek waaye suñu borom noppi woon na ci bu yàgg wuute gi mi ngi tàmbalee ci koo gis boo ko jëkkee gis tey da nga ko xam su fekkee gisoon nga ko it te yàggut lool bu fekkee yaa nga ànd sam xarit da nga xam ne masan nga ko gis noonu ngay xàmmee nit noonu ngay xàmmee nit ñi moo leen wuutale bokkaliwuñ dara bokkuñu nu leen suñu borom binde bokkuñu ay wax ñi bokk wenn làmmiñ wu ñuy wax sax ku cay wax nga xàmmee ko ca buy jooy nga xàmmee ko buy ree nga xàmmee ko buy xàqataay nga xàmmee ko waxuma laa muy dox di dem wala muy dox di dikk kon yàlla moo wuutale nit ñi ba noppi ba mu leen wuutalee noonu nag ci nekk gi nit nekkal yàlla ci kaw suuf di xalifaam yàlla dafa ko bàyyee lépp lu ne ci kaw suuf bu ëllëgee nag mu laaj ko ko ci la yàlla defee nit ñi sàkk nu ñuy xàmmante ci seen biir sooboon na yàlla ba noppi noo sant nangam xanaa mbokkum diw nga xame ba tàmbalee fa ci néeg boo bokk néeg sa ngam xanaa diw sa mbokka ngeen tàmbalee faa xamante loolu du lu nit ñi sos yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu wuute googu nag ci la nit ñi dem ba métier yi nga xam ne sax dañ ciy fàggu ab dund nit ñi séddale ko ci seen biir am ñoo xam ne ci bant la ñuy liggéey ñii di liggéey ci ay weñ ñii di liggéey ci ndimo ñii di liggéey ci suuf si ñii boole suuf ak ciment ñii bàyyi ba kooko noppi ñu ñëw diw ko ak diw bokk yi ay wolof yu leer laay wax képp koo xam ne bant mooy métier ci lay xëy di ci wàcc di ci am lu muy dunde ba mën a sàmm ngorom man caa jaamu yàlla te kenn du ko xamal dara bis bu duggee ci fekk kay liggéey ca weñ mu bëgg a bokk ak moom métier meñ ma ñoom am na fuñ mën a daje mën nañuy daje ci daaj aka nat aka ceere waaye ku ci liggéey ba àggal da nga xam ne ñaar ñii ki leen liggéey wuute na soo ko bëggee fekk ci ay weñam bëgg ko gën a xam su ko neexee lànk waaye kay liggéey ci suuf nga xam ne suuf la xam tibb suuf su fekkee sëb liggéey mooy liggéey ci ndimo ñoom ñaar ñooñu moom dajewuñ fenn moom ñi ñi natt ak a daaj sax mën nañoo am fuñ daje waaye kii liggéeyam ci bu suuf munta daje fenn ak ki nga xam ne liggéeyam mooy jël ndimalu yees peq ne tareet tareet nga defeen da koy yàq te fekk bu ca noppee nga xam ne yàq ko woon da ko doon defar fa ñuy daje daal mooy mu am xaalisam ñëw ne ko ñaawal ma lu mel nangam kii itam am xaalisam ne ko wutal ma suuf kon boog képp koo xam ne fekk nga ko ci métier am bëgg ko ko gën a xam bëgg caa investir bëgg ko caa ëpple soo ko wanee gannaaw nag baat bu mu la teg bay boo nga nangu ko te xam ne bukki bu dabee ponkal nee nañ ca doxin wala gannaaw ku ci nekk yàlla daa am lu ko féetaleel bu ca yamee kee yam ca lee lépp mën naa baax bu ma ko tàmbalee ci ki gas suuf ku bëgg a tabax da nga ko seeti moom ngay jëkk a seeti soo jëkkee wax ak ab tabaxkat it faw da ngeen àndandoo dem wëri ko moom mu liggéey liggéeyam nga dem seeti ki nga xam ne day jaay su ciment faw ngeen seeti ko yéen ñaar bu fekkee bëgg nga tabax bu ngeen noppee wuti ko am ay doj kii weñ móolkat dikk moom du dajale suuf du dajale weñ yoonum nekkul ci weñ moom waaye suuf ak ciment lay boole tapp tapp ko ba mu doon ay brique foofa la métier di am ñu wooyi nag koy defar defar katub kër nu ñu koy natte fu buntu di jaar polonteer di nekk ba mu noppi moom ñu wooyi nag ki ko war a jëmmal moom muy maçon ñami àndal kooku itam daa bari ñuy ànd ak moom dugg ci biir tabax bi bu tàmbalee niru tabax ñu bari lañ bokk yi ñooy ñooy ànd ku nekk ne ca la mu war a nekk def la mu war a def kër taxaw waaye ku bàyyi la mu war a def ñëw rax si kii ci li mu war a def su ko ko bàyyee dara du baax yow nag mën ngaa am alal jël ñi liggéey ci bâtiment ñépp ñu daje nga leen tabaxalee ma lu mel nangam waaye la la ciy ump te doo ko mas a xam mooy fu mu dënge ak fu dosage manqué wala fu mu baree loolu moom ñeneen nga koy bàyyee ñu xam ko ñoom moo tax loolu suñ ko boolee dajale ko mooy kenn ku nekk doyloo lam féetewoo te yàlla féetale ko ca mu fas yéene dara du ca boñ bu dee politique bi nag la sëñ bu mag bi teeloon naa wax ak Sénégal gi nga xam ne moo ko meññ meññ ay maamam xamal leen ne ku ci nekk ak la mu war a féeti woo laata yoonu murit di am la ko waxoon daanaka sax jafe-jafe yi ëpp ci yëm am ci dundam looloo ko ko teg daa jëm fu kenn bëggut kenn kenn xamut fu mu doon daa jëm fu kenn xamut rek ndax bi fi way juróom bàyyi ko lu gudd la waaye dama ko bëgg a gàttal mu gën a yomb a xam bi fi way juróom bàyyi ko bis ba ñu ko jëlee Mbakke Kajoor di ko yóbbu deqale ca la tàmbalee wane yoon woo xam ne kenn xamut fu mu jëm waaye leer na léegi ku ca teg tànkam mën naa bañ a juum diggante Mbakke Kajoor ak deqale du diggante bu sori lool nit mën na ko dox ba léegi si ba ñu koy indi yanu ko am na ko dox ba tolloog moom war fas wu baax ne ko mbàkke am waral fas wi yërëm ko lool ndax way juróom bu bees bi fii ba soog a bàyyi ko ni mu toll ci at boobu amagul ñeent fukki at mu ne ko baax na dox moom a gënal ndekete yoo xel mi dana yar ci kii war fas wi fu mu war a jële yuy fas wii sàll ndax fi mu ko jëlee baax na fekk lu jiitu moom ak antisel di nelaw buur ñëw na fa bés ànd ak ñam àndal am ku ko ne mbakke baal ma jox ma ci bant yooyu benn ma karmat fii dara booba dañ ko yónni ka ko doon yónni sañ na ko yónni mu jóg ndànk dem ba ca àll ba mu seet bant boo xam ne bantub yàlla wa huwa alladi anshaa jannatin maarushatin wa gayra maarushat gépp garab goo xam ne dañ koo ñag ab ñag wërale ko ka ñag-ñag ba jàpp na ne moo ko moom bala caa kenn jëfandiku da ngay dem laaj ko ndigal yi nga xam ne nag yàlla lañ fa saxal nam saxale garab googu te ñagu ko kenn ñagu ko ñépp sa bokk yam jaar sàkk la tudd mu dem ba ca gannaaw kër ga mu seet bantu mbañ faale ki lay doon xat lay doon mu dagg ca bant defar ko ba mu ba mu mel na mu war a mel mu yët ko kooka kam ko yët ne buur xoolal lu ma la waxoon li tax mu sàmmoonteeg sàkk sàkket wii kat dane moomuma sàkket wi du ma ci jël damay dem ci bant yi nga xam ne yàlla leen fa teg moomal leen boppam ñépp bokk kon bu defaatee ci fas wuñ koy jox muy xool fasoo fu ko waaj a war a jëlee ba di ko jox mu di ko war warut a jaaxal ne ko ña xamoon dara baaw ña xamoon loola ba ñu ko dencee ba noppi nag ba kay dénkaane dénkaane wax dee lum doon ak nuñ ci war a waaroo ak nuñ war a góorgóorloo dañ ko ne kaay fii ci mbooloo mi ñu jàll ñu jàll la sa baay mu bañ a jéggat ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon ku dugg ci mboo fu mbooloo nekk te fu ci jàkka la waxoon waaye fu mbooloom jullit daje te wuy ji fa ngir yàlla day yor attab jàkk mu xool xool di bañ a jéggi mu toog fa mu ne ko yow laay waxal mu ne ko soo waxee danaa ko dégg diiñ lool xam boppam ne soo waxee danaa ko dégg mu ne ko dañoo bëgg nga ñëw ànd ak loolu mi ngi ci irwa irwa un nadim si mbir léegi bi dagana ma ko bind dañoo bëgg nga ñëw ñu ànd ak yow dem ca buur ñu jaale ko sa baay ndax wëllëree ma woon mu ne nangu naa ko ndax ku tedd ki la Seydina Omar wala Seydina Ousmane wax ne moo ne woon min abarril birri an yasila rajulu ahla wuddi abi moom kenn ci ñoom ñaar dafa nekk amirul muminin war as mbaam loolu it njàngan bu bari la dem ba nekk amirul muminin waroo gëléem gu def jagaagal ca kaw gaa yi wër la waaye ngay war a as mbaam waaye doyoon na ko taseeg góor gu mag mu wàcc ne ko am ñu ne ko yaa amiral muminin ni nga toll ak li ne ci sa gannaaw lépp ngay wàcc mbaam si di ko jox góor gi mu ne góor gi dafa doonoon sama wëllëreew baay te ku tedd ki moo ne min abarril birri an yasila rajulu ahla wuddi abi bokk na ci li nit di defal baayam mu neex ko gannaaw bi fi bàyyi ko jokkal ko ay kóllëreem sëñ bi ne nangu naa ay ca nañ dem teg ko fu leer ñu ne ko bu ñu fa demee itam ñu dénk la ko mu am fu mu la féete nga am foo ko féete mu ne loolu fii laa koy bañee xel xalaatu rus naa di jog gi sama tànk moroom ca di ko fekki may fekki buur asamaan si di ko seere ëllëg ak suuf si rus naa ko loolu wax si minum Sëñ Tuubaa waxi Sëñ Tuubaa la ba ñu ko téyee bàyyi ku nekk bëgg koo wàcce ndax dafa teg ña fa nekkoon ñépp gàcce gu wóor gu leer moo xam ngay boroom xam-xam walla amoo ko ndax jamono yooyu ku mën a bañ loola dangaa joxañ waroom xam-xam ya àndoon ak buur ba ñi bëgg a ànd ak buur it danga leen a bëgg a tayalloo te xel xalaatu ñu di ko bañ ñoom faw kay bu ñu tamit dañuy ànd dañuy am ñu ñu àndal suñ mur leen Jóob Dagana bind na ci onatim ne ka ko mujj bind ab leetal moo ngi ko jox ku ñuy wax Adama Sall Adama Sall moo ko jox sëriñ bi koo ko bind ca yu bari yuy tax yuñ ko yéene ba tax ñu bëgg koo boole ak buur sëñ bi wëlbati këyit wa ca gannaaw ne Muhammad ibnu Salamata moo wax ne boroom xam-xam buy dem ci kër buur mi ngi mel ni weñu dal ci ginnaaw kër ba courrier ba ñëwee ba ka koy jàng war koo jàng ba mu ubbee yam ca def istirja inna lillahi wa inna ilayhi rajiun buur ne ko lu mu wax mu ne ko neexut a wax mu ne ko ana lu ñu bind te kenn du ko mën a jàng ba mu ko ko waxee mu ne ko loolu kay amul solo yow kay waxuloo dara ndax yow mii di boroom xam-xam nekk fi buur yow ay weñ wi man mii di buur maay gannaaw kër gi loo ci xam loo xam ci kii boroom xam-xam ba ne ko xam naa ne ku sangoog moom boo ko daanee da kenn du danga am tur wut fay ba mukk waaye comme daaneet dootuñu la dégg fenn da ngay far bu faw te nit ñuy def ba daan ko jaaxal na ma ki ko doon wax da koo yar kooku bindoon na ko ay bayit ne ko maa doon sab sëriñ nga doon sama taalibe waaye maay sab taalibe léegi nga doon sama sëriñ maa la doon jàngal ngay sama dongo waaye léegi yaay sama sëriñub daara maay sab dongo kookee fekk na ko fii Tuubaa bi ñu fi sañcee fekk ku àndoon ak buur rek gaa yaa ngi la topp am ndax bëgg laa laaj mu fekk Tuubaa sëriñ bi ne ko lenn rek la bëgg bul ma ñaanal yàlla bul ma ñaanal kenn neel tubaab yi bàyyi leen diw rek soo ko waxee wóor man dañ ma bàyyi sëriñ bi ne tubaab yi bàyyi leen diw foofa la lu lépp doxe foofa lañ ko mujj tuuti ba lim faatoo waaye waykat bu nekk yónnee nga ko ay way di ko waar di ko wan sa balaaxa bu bu bu dis gan bu xóot sa bayaan bu xóot sa mantiq sa xam luxa sa dégg naxu di ko jommal bëgg ko wedem loo ci aw layam yu ci bare bari yañ yañ bind xam sut ba xam daal feeñagut wala ña ko yor dañ ko denc waaye moom lim bind tasaaroo na ku dem ci téere suñu mbir leen jëm boobu da nga ko ci fekk xaaloo li yerkan ñiy jàng xasida yi sax ñi ngi koy way nit ñi fottasu waaye xamuñu la muy wax dëgg bu ñu xamoon la muy wax ay jooy lañ koy booleen xaaloo li yerkan li abwaabi salaatin taxu zawaahiya yu tuxni kulla maxin nee nañ yoon wi nga jaar lajjal wàcc ko mu mel ne daneen laaj bu ma ko wàccee fu may dugg ñu ne ko ci buntu buur yi bunti wóor yi su boobaa loo bëgg da nga ko am ak saa soo ko bëggee ak noo ko bëggee fa qultu xasbiya rabbi fa xultu xultu moom la suñu Ibrahima Mbakke waxoon ne maane te maane fu mu teewe moo ne duutu doon dara fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya gayri alilmi wa diini ma ne leen yàlla doy na ma te doyloo naa ko yaari bay dong laa ci tànnaat yoo xam ne ku bëgg am basira li ñuy wax vision dangay takkoog ku takkoog yàlla teg sa tànk ku fu ko fu ko ku takkoog yàlla teg boo ko xamee yow nga ne ci ñàcc bayit wii lu xorom la ci suñ jamono am na bayit yu ko jiitu waaye tànn naa ko ci an naa wala an ne an ne ak ana nag bokkuñu an naa bokkut ak ana an naa ufawidu ab laaj la an ne ufawidu axwaali liman ajazu an xaali anfusihim ajzal masaakini man nu ma fabe sama mbir di ko wéer ci koo xam ne day mën a ko tële loolu àgg nañ ci bokk yi réew mi am na ci ñu bari sax muy àgg ca muy law ba àgg ca kële ñi def ñoom ñëpp ñu ci baree baree bare mën nañ laa teral teraanga joo xam ne ji nga daan xaw ma xaw ma ne teraanga ju mel ni dina ko teral moroomam waaye mën nañoo teddadal nit it tedd nga tedd teddadi joo xam ne da nga naan lii dafa war na nit du ko def nit kooku day mel ni mën na mën na dara ku la mën naa teral ba nga yéemu waaye mën naa teral mën naa teddadal nit it ba ñëpp yéemu ci waaye bokk yi fan yii ci réew mi lu ci xew ñoom ñëpp génn nañ fañ doon liggéeye di wër naan jàppale leen ma ci nangam parce que suñu tubaab xamoon na ko kon am na foo xam ne mën nañ fa dara waaye am na foo xam ne mënuñu fa dara yow lañu fay yaakaaraat moo tax sëriñ bi fab faroon fab mbiram wér ko ci suñu borom mi nga xam ne ala kulli shay'in qadir wasia kursiyuhu samawati wal arda wala yauduhu xifduhuma la taaxuduhu sinatun wala nawm waaye bay bay doom tëjee xasida ga moo yéeme lool in kaana aybi zuhdun fi xutaamihimu fa daaka aybun nafisun laysa yuxzini su fekkee ak dese cim xel wala ayib ba kenn nangutu jaxasoog yow mooy dëddu li waa adduna yor tamay jeex bu fekkee loolu ayib la ayib jooju ayib nafis nafis mooy loo xam ne jaayut lépp lu amul njëg am na ñu ko mën a jënd am na ñu ko ñemee waxaale ku ñu neex sax waxaale boo dee jënd borub jënd waaye lu jaayut moo cher mu ne ayibu nafisu laysa yuxzini ci waxinu jamono mooy ayib jooju dérangé wu ma du ma tee def dara du ma yóbbu ci stress nangu naa ko féetewoo kon xasida googu ñi koy daaj ñu di leen fottasu war nañ koo dem tërallu ci ñu tojal leen ko bañ xam ko yàlla buñ ca doxee sax bàyyi di fayu ñu di leen géewal ñu jàng far ndax am na ñuy géewal ñu jàng ñoo xam ne astur dong lañ ciy wut tuut soosu nag sëñ bi teel naa xam la ne wut ko ci suñu borom mi ko dul jeexal moo ko jar kon ku dib taalibe yow sëriñ bi wax na ak yow sëriñ bi wax na yow su ko defee nag buñ junjee tuuti ci lii waral waxante gi ku nekk di sañ a wax ku nekk lu nekk te bàyyiwuñ xel ne ñi koy wax ak ñi ñu koy wax ñépp dañuy mujj doon ay mag liñ bëgg suñ ko amee ku ci nekk da nga fi am juróom-ñeent fukki at yu teg di xàmmee di man waaw suñu àggee ca loola ña ko doon waxante kañ ko doon wax ak ña ko ko doon wax ñëpp ni jàmm ni nopp nag ñëpp di leen déglu ci ay xalaat yu rafet ak teg sab tànk ci siraatal mustaqim su boobaa am na nu muy demee moo tax gannaaw lay wéy wéy na ba noppi wolof day wax ne su ndox tuuroo an baq des waaye an baq amul njëriñ dem rootiwaat mooy tax a amaat ndox su ko defee kon li mat a def ci jamono ji mooy jubluwaat ci yar njaboot gi wan leen aw yoon moo lay mooy tax ñu xam lépp lu ñuy dugg buñ ca dee génnaat it gannaaw gu sedd guy lañ cee génnewaat waaye lu ñuy wax it danañ ko seet settantal ko ba seppali ko léeg-léeg sax ñu far ko bàyyi ndax ju ñëw nañ ko fi ci benn bis ku jàngoon ba nekk salma shiita moo xewoon ca mag ña bu jëkk mooy li jamonoy wax naan man sama taxasus sama spécialité mooy nangam am naa lii am naa laa mag ñi salma shiita lañ doon wax ne moom laa loo loolu laaj rek ma am naa ko tontu newuñ loo ma laaj ma xam ko de ndax léeg-léeg xawma ko wala noppi di tontu waaye kenn ci ñoom ba mu jàngee ba dikk nekk salma ci ita baayam da koo yónni yu bari la gis ci yoon wi waaye ba mu génnee gis jaan ju génne ci mpax mënatu caa dugal ba mu ko laajee baayam dana ko wax ji dox nga gis wax nga gis wax bu xasee ba génn ci làmmiñ jeex na kenn mënatu koo téyeeti mu gis ndox su tuuti su nit ñi di lab mu ne ko lu mu mu ne ko mooy bokk gu dëgër bokk gu taqaloo ku ca dugg des ca ak bokk nag jubluwuma ci rek ñu bokk aw askan wala meen waaye ñi bokk réew mi làmbale na leen rawatina ñu bokk diine ji ak fi mën a nekk mu gis ndox mu bari moo xam ne ku xuus jàll moom ci boppam mu xuus sa jàll ndax dañ kumpa xibra mu ne ko loolu mooy bokk yu àndut ku ku jaar ci ku dugg ci seen biir loolu neex daf jàll kon yar bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nuróole ko ak sart bi bu yor ab jur suñ la ko xasee ba jox ba nga nangu ne maa koy sàmm su ngoon jotee sañ nañ laa laaj ana mburtu sàngam wala ana tëng sàngam daa firi wax suñu borom ji mu wax ne ni ngeen fexe ba bañ a dem sawara ëllëg waaye seenu ñàkk a dem sawara yéen kenn amul njëriñ waaye fexe leen ba képp ku ñuy tudd di ko tudd ci yéen ngeen fexe ba mu demaale aljana moom itam na ngeen demee aljana ndax sawara woowu ngeen di moytu ba tax ngeen bëgg a mucc kët jar naa moytu moytu ndax bu dee oto yi gaz wala ñi doon yi doon essence yi doon gaz solaire léegi dégg naa am na ak courant waaye sawara wala yàlla nee na nit ñi ñooy doon waquudam waquud mooy carburant bu nit ñi jeexee ñu jël doj yi te ña fa nekk di ko garde saa bu taal bi bëggee gémm ñu xambaat xamuñu kenn malaikatun xilaal shidaat ndigalu suñu borom rek bu kàddu gay daanu ñu di ko def xamuñu sant xamuñu askan xamuñu néeg xamuñu yax bu rëy xamuñu yax bu sew qu anfusakum wa ahlikum naar ba aaya ba àgg waroom xam-xam yi ne mooy na ngeen leen jàngal xam-xam bu am njariñ sëñ bi firi na xam-xam bu am njariñ bu ko amul ci yaari bayit fa kathratu lilmi bi gayri adabi jalibatun ila l ada wa taam luñ laaj nga am ci diplôme yu dul jeex xam lu nekk man lu ne da ko gën a ëppal njariñ nit ñi xam-xam bu ne gàññi te anut ak ab yar nee na kooku day sonn sonal nit ñëpp su sonalee ñëpp nit ñi mën nañ koo móolu suñ ko móoloo yàlla mën na caa dajale làmmiñ woo xam ne bii yàlla day nangu la muy wax ndax mere tax mu di ko wax waaye nee na it bokk na ci xam-xam yu am njëriñ xam-xam buy wan nit ki ay bi boppam saa su nekk di ko wan ne doo kenn ku dus njaamu si yàlla tax muy daas pas-pasam saa su ne ci ragal yàlla nee na lu waaye mën a xam te amut ragal yàlla ci ay jëfame ko waxam yéene ko ko tudde waaye doonu ko inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna al funun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jeexee di nit di am ci ay doomam ak njabootam la leen bëgg a leeralal bu ko sababloo yàlla jox ko ko na sant yàlla nit sabablu na ko ay at te mënu koo am yàlla koy joxe su ko ko yàlla joxee nag dafa mel ne ndab set bi ci la ko jox du defagu dara dab yi jaay ca jaba lañ koy jariñoo rek moo leen di wutale waaye yépp yi bay saytoon bu ñu koy jënd bool bu ndaw ak bu mag ak palaat ak potuwaas bu ñu koy jaay yooyu yëpp ka leen defar kenn kee ñu bokk bes peq waaye bu dikkee ci kër gi nag dañ koy séddale fenn fu nekk dara jëm fa kon ñi yilife dañoo am wàll wu réer réer ci njaboot gi ñoo koy seetaan ba mu nekk ab yahud loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax wala ñu seetaan ba mu nekkum nasara wala mu nekkum majuus yàlla yàlla mën ci ayu ñaar yett yooyu yëpp nee na it nit bàyyi lu fi doomam gannaaw bu mu fi bàyyi ko lu gën ci doomam wala ko ak njaboot rek bàyyi lu leen fi lu gën ab yar su leen fi bàyyee alal mën nañoo bew ba séq ko koo xam ne bala mu leen a xam dana leen booleeg seen alal te waxam mën na fee bàyyi ñoo xam ne dañ ne ar ak i diplôme waaye ñàkk bu yar ne ca ñoom ñu boole leen seen xam-xam ba toroxam waaye kenn mës a gis ku ñuy booleeg ab yaram di toroxal ndax fu mu séen fu ñu koy toroxale fu ñu toroxale nit ñi ma mën na faa jaar jàll te kenn du ko tudd yar baay tax loolu it bag yi am re nag ya ca fes yépp waxtaanu boppam la beneen insha allah moo tax mu waxoon ne li ci jiitu muy nañ tàmmal gone gi ak jaamu yàlla bu amee juróom-ñaari at fooy julli ne ko ana diw mu ne maa ngi ni nga ne ko bismillah donte waragu ko waaye dañuy bëgg saa bu demee ba war ko nim la ware mu sawar ca ay cëram miin ko bu ñu amee fukki at nañ leen tàggale nañ wutal ku nekk fa muy tëdd loolu it su fekkoonte ne jëfe nañ ko yi ñuy wax yépp du am bu fekkoonte ne gone gu góor tëdd ak moroomam gone gu jigéen tëdd ak moroomam yi ñuy wax ci jamono ji yépp du am ndax duñ ko xam waaye joxoñu suñu boroom xar-xarub doj la xar-xarub doj moo ko am maamam ju màggat ñoo bokkub àtte wolof day wax ne sa maam loo ko gëj gëj a gis bul jàpp mukk ne sax na bañ sa gannaaw na nga ko bàyyi woon rek na la mel waaye atteb suñu borom bu jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo foo bàyyi sa maam ñooy am rek nam meloon rek lay mel ku jaar ca yoon wa gis taseeg lam ca dige ku ko wàcc gis ko yàlla na nu yàlla dimbale ba seytaane mën a bañ a dox suñu digganteeg taxaw ñu ñu war a taxaw te musuñu ci pakk jamono ji maa ngi jeexal ci loo xam ne kenn ci sawaat yi Sëriñ Tuubaa di wax ci masar bu ginaan te la bokk ku ñuy wax Sufyaan Athawri doylu googu Sëriñ Tuubaa amoon ba gis lu mu mën a jële lu ne gàññi mu ne ko fu ñukk ba ñépp soxlu ko ba kalaame ko ak tubaab ba tubaab jàpp ko fanweeri at ak yaar bis bañ bis ba muy jógee njëleen bi ñëw Tuubaa bëccëg ba mu mujj yendu lam doon wax moog ba mu doon wax ca Mbàkke Kajoor benn la doon kim doon xam ko yam ca ba mu mujj nekk xutbu xutbu mooy fu ñëpp dëgmal marché yu mag yi nga xam ne ku xëy dem ca wala ñu demal la ca marché boobu xutbu la mooy fu ñëpp jëm te ku mësee ñëw ci moom way gam wayoon ca lam waroon a nekk tax na doo fa ñëw delloog loxoy leen ku ñëw sa aajo faj way deng Sufyaan Athawri donga ya dañoo àndandoo def mbooloo loolu mi ngi silkul jawahir bi ñu ñëwee nekk dañoo bëgg nga ñaanoon ñu buur mu tabaxal ñu ab teen gasal ñu teen mu ne leen dem leen ba suba ca suba sañu dellu si mooy dama leen ba suba ba mat ay fan ñu fàttali ko dañoo defee na nga ko fàtte mu ne fàttewuma ko man yàlla mi dul jeexal dara sax duma ko ñaan dara waxuma laa mbindeef muy jeexal damay toog di xaar yàlla lu ma jox ma jël waaye bokk yi bopp bu tuuti sedd guy moo gën fuuf bopp bu rëy lool boo xam ne ma ngay wàng wàng wàng wàng mooy mettitu bopp te it mënoo ko doo ko mën a wax kenn boo ko tàmbalee boo ko jàmbatee lu bari rek ñu ne kii nag moom wax diggal daa bari njàmbat dutuñu yëg la ngay yëg mën nañ ko yëg ci njëlbéen gi waaye bu yàggee dutuñu ko yëg mag ñi bu ñu daan bay daanañ bàkkoo naan takkaay bari yëngutu njàmbat bari sàppe kon war nañoo delloo si waat mag ña xam ne cër bu waay mën a am ba tax bindee fi di la ko jox di la xool xooleenu ñooñ xooleen wenn xooleen yi liggéeyu mag ña liggéeyu mag ñooñu nag bu doxee ba agsi ci yow ak koo mën a doon da nga caa war a bay sa waar ba bu ëllëgee yow itam say doom mën a waxtaan ci yow waaye